هذا الأمين من المولى نبوته خدما وآدم في سلسال خدل بيدا هذا الأمين من المولى نبوته خدما وآدم في salsal xatlu bida aousubillahi min alsheytani irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayidna moolana mouhamadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñu ngi fii ci Touba euh, ci bis bu tedd bis bu màgg mooy bisub Cheikh Mouhamadul Fadal di bisub Kazu Rajab yaakaar naa xel yi ak xol yi tey yëpp euh, mu ngi fii ci Touba ñu ànd ak mbokki taalibe yi fa yéenee màggal bis bu tedd bi ah, te xam nañ ne bis bi nag mooy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru chahru euh, rajab euh, waaye nag euh, guddi gi mooy guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu nekk fii nag ci Touba mosquée ci kër jàmbaar ju mag sëtu Serigne Touba Khadim Rasoul ñu koy wax Serigne Abdou Mbacké moom sëñ Cheikh Ibra moom Cheikh Mouhamadul Fadal muy kenn ci waa kër Serigne Fallou yi di taxawal màggalu Kazu Rajab nag at mu jot fii ci Touba moske ren nag mu ngi toll ci euh, fukkeelu édition ak benn euh, ñu fa yéene koo tàllal suñu micro ànd ak waa Touba Tawfekh euh, Production mu am ay leeral yu mu def ak ay soññe ci taxawaayu màggal gi kon sëriñ Abdou Mbacke bismillah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara ah, di leen sant di leen ndokkeel tey ci bisub sëriñ ah, Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi ah, di wax ne bis bi ñun day sunu bis di sunu féete ñu nekk ay at yoo xam ne ñu ngi taxaw di taxaw bis bi ànd ceeg mboolem daayire soppe Sëriñ Fallu yi ak waa daayire Nooru Daarayni ak Safinatu Aman ci Géejawaay waaye yàlla suñu borom boole ñu boole gu jéggi dayoo goo xamante ne si at mu jot bu ñu dajee fii liggéey bi day mel ne ñu bokk ndey ak baay te bëggante mm-hmm. loolu moo fi feeñ liggéey bu am solo moo fi am fii mm-hmm. loolu nag day lu rëy loo xamante ni si jar naa wax ñëpp dégg ko mm-hmm. ndaxte ñi fi daje ñëpp dañoo bokk taxaw ne ñoom ay soppee Sëriñ Fallu lañ boole seen bopp ci benn buum dajale seen alal ak seen lépp ñëw di màggalal Cheikh Mamadou Fadal Mbacke fii ñu ànd ko nag ak suñuy mag suñuy kilifa di suñu Ousseynou Mbacke ak suñu Assane Mbacke ateex ñu bokk nekk fii xam ne yàlla suñu borom moo ñu boole boole gu wér ñu bokk nekk fii di ko fi defandoo ak mbokki taalibe yi yëpp waaw loolu daal mooy mooy mooy daanaka li ëpp solo ci ci liñ mën a wax ci bis bi fii waaw bu ñu seetloo yi dañuy gis ne euh, bu ñu ñëwee fii ci kër gis nañ positif bi nga xam ne moom la euh, ndaw ñi àndal ndax dama seetlu nañ ñi ànd ak yow ñi ci ëpp ay ndaw lañ te positif bi dafa macha allah dafa jéggi dayoo loolu ana ban organisation ak ban taxawaay ngeen am ci at mi bay mën a am résultat boobu waaw xam nga euh, loolu nag li ko li ko li ko waral te li si jiitu te am solo mooy ñun lu ñuy def dañ dañ koo def ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa dañ koo jiital ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa maam jaarale ko ci Cheikh Maodo Fadal Mbacké mi nga xam ne liggéeyal ne Sëriñ Tuubaa lu nekk ba Sëriñ Tuubaa gërëm ko loolu moo waral maanaam positif boobu nag di feeñaan ndax lépp loo def te dëgg tax koo jóg rek xol yi wuyu si la loolu moo waral li ñuy def ñoom ñu am ci pëseef am ci ak dogu am ci euh, coono boo xam lépp rek loo xam ne mën nañ ko ñu ngi koy def di jugee fu nekk nag ci Sénégal di ñëw fii loolu nag dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom mu gën ñu cee defal ay xéewal rek may ñu wér akuk tal ñu mën di ko continuer di ko defee noonu ñu ko daan defee ci barkeb Cheikh Mamadou Fadel Mbacké di leen sant yéen itam bu baax a baax ci seen teewaay fii ndax rafet na lool ngeen ñëw jël li nekk fi wane ko mbokki taalibe si biti te nga xamante ne si daan nañ ñëw di ko fekke te ren yàlla dogal mënuñu koo fekke ñu ñëw fekke ko loolu tamit ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci barke Cheikh Mamadou Fadou Mbacke jërëjëf Mbacke kon euh, yéen ñi baaxoo di ànd ak Tawfekh euh, Production kooku moo nekkoon Serigne Abdou Mbacke moom sëñ Cheikh Ibrahima moom Cheikh Mouhamadoul Fadal dégg ngeen soññe yi nga xam ne def na ko yaakaar naa taxawaay bi rafet na lool kon ñu ngi jàll ci yeneen mbokk taalibe yi